asalaamaaleykum mbokk yi staan alors Dakar TV man Daalu Ndakaaru maa leen di fii may tasee yéen a kaay ma daa dem ci l' observateur l' def euh, réforme constitutionnelle

la source la source ñu def l'hôpital principal de Dakar n'a 5 cinq Manam hôpital bi Dakar hôpital principal de Dakar nek fétiotu palais ba la la fa am ñi lak mënatul hôpital principal ci bopam jamono ji dafa il est malade

waxuma ko de waa direct actu ñoko wax mi ngi ni local 2019 yi élection maire yi maire yu bari di lañu wadd Moussa si maire la Diouf sar maire la Barthélémy Dias maire la waaye nak waxuma ko de ñoom ñoo wax bokki Sénégal wo wo joxati leen ma sen nopp te déglu amna lu xew ki nga xamanteni moy mooy Birame Gningue Birame bu yof nee na pare na takku na fas yéene jàkkaarloog Ablaye Diouf Sarr biir yoof ci maire local yi ñu jëm Birame Gningue nee maire bi nga xamni mo nek yof ni mu ko yoree moom gisu ci boppam ba tax na moom affaire bi bu dee lamb la Birame Ngingue samp na ndëndëm jàkkaarloog Diouf Sarr Birame Ngingue nee na maire Yoff lay doon 2019 bii par force mook Diouf Sarr waxuma ko de Birame Ngingue nga ko wax ba suba